centre académique d'orientation nationale de 63 656 Ibrahima Dia lycée islamique 63 63 719 Kébé école privée voilà chers camarades chers candidats à l'issue des épreuves du premier tour les noms suivants sont les noms Yo, I'm in a 205 200 Tout d'abord, je tiens à, me remercier moi-même parce que vraiment, ça n'a pas été facile pour nous. l'année scolaire était très longue pour nous, mais à la fin, Dieu a fait de telle sorte qu'on a, qu'on a eu notre, notre avec mention. Et vraiment, euh, pour l'instant, je ne je, je, je perds, même pas, je parce que je suis, euh, je suis ému, franchement parler. Mais maintenant, bac bi nag xaw naa saf quoi surtout ci côté ci côté L yi ñun nous de de mais xaw na métti tuuti ci ci série S yi daal ci série L yi. mais de toute façon c'est Dieu qui l'a voulu ainsi ñi nga xam si ne am nañ yàlla nekk seen jiglaay ñi nga xam si ne amuñu. ñu muñ te xam ne si ne yoon yemul ci benn voilà. 66 206 Cheikh Dieng lycée Pikine 66 141 Papa Abdoulaye Diallo lycée Seydina Limamou Papa Latir Diouf lycée Seydina Limamou

Mamadou Moustapha Diallo Seydina lycée Seydina Limamou Laye Mohamed 66 132 Mohamed école privée Rose Dieng sos 66 300 Seydina Limamou Laye 66 333 Mbène Diop lycée Mame Abdoul Aziz Dabakh de Guédiawaye 66 333 oui Mbène Diop lycée Mame Abdoul Aziz 66 335 Mohamed Diop lycée Seydina Limamou Laye 66 340 Mouhamadou Lamine Diop Seydina Limamou Laye 66 344 Mohamed Lamine Seydina Issa Rouhou Laye 66 346 Moustapha Diop lycée Seydina Limamou Laye 66 347 Ndaraw Diop lycée Seydina Limamou Laye 66 350 Ndeye Binta lycée Seydina Issa Rouhoula 60 série S2 sciences euh, expérimentales mooy ñi nga xamante ni euh, ñooy les admissibles maanaam ñëpp pare nañ ko lycée Seydina Issa Rouhoula 66 975 Abdou Mbeng mention assez bien lycée Seydina Limamou Laye 66 937 Anta Mbaye mention assez bien lycée Seydina Issa Rouhoula Laye 66 755 Demba Guissé mention assez bien lycée Seydina Issa Rouhoula 66 995 Pape Ibrahima Mbodj mention assez bien lycée de Pikine 67002 Aïda Mboup mention assez bien lycée Mam Abdou Aziz Sy Dabakh Guédiawaye 66900 Abbas Ly mention assez bien lycée Mam Abdou Aziz Sy Dabakh de Guédiawaye c'est bien lycée Seydina Limamou Laye 66723 Ndeye Fatou Gueye mention assez bien lycée Seydina Limamou Laye 66720 mansion assez bien lycée Seydina Limamou Laye 66 658 Adji Gueye mention assez bien lycée Seydina Limamou Laye 66 850 Cheikhouna Al Khadim Khoule mention assez bien lycée Seydina Limamou mention de Guédiawaye 66 997 Mohamed assez bien école lycée Pikine 67 014 Thiané Mbow mention assez bien lycée Seydina Limamou Laye 66 676 Diama Gueye mention assez bien lycée Seydina Limamou Laye 66 641 Alune Abdoul Goudia 51 Alune Abdou Goudiabi mention passable lycée Pikine 68 810 non passable lycée Seydina Limamou Laye 66 885 Koumba Lo mention passable lycée Seydina Issa Rouhou Laye 66 961 66 715 Mouhamadou Gueye mention passable lycée Banque Islamique 66 783 Souleymane Kamara mention passable lycée Banque Islamique 66 918 Pape Malick Ly mention passable cours Cheikh Anta Diop 66 720 Ngoné Gueye 66 729 Ngoné Gueye mention passable lycée privé les praticiens 66 712 Mariama Bey Gueye mention passable lycée Seydina Issa Rouhoula 66 970 Penda Mbaye mention passable centre académique d'orientation scolaire et professionnelle Pikine 66 816 Samba Abdou Kane mention passable lycée Abdou Cissé 89 Binta Kane mention passable école privée Cheikh Ibrahima Niass Baye 66 953 Mariama Mbaye mention passable lycée Seydina Limamou Laye 66 830 Alimatou Kébé lycée Seydina Limamou Laye 66 808 mention passable lycée banque islamique 66 721 Ndeye Awa Gueye mention passable lycée Sédina Limamou Laye 66 66 623 Marie Gueye mention passable lycée Sédina Limamou Laye 66 621 Mame Diarra Gueye mention passable lycée Sédina Limamou Laye 66 620 Toula. 66 986 Mbathio Mbengue mention passable lycée Seydina Limamou Laye 66 983 Malick Mbengue groupe scolaire Le Baobab 66 722 Ndeye Awa Gueye mention passable groupe scolaire Gaston Berger 66 942 Dié mention passable lycée Seydina Limamoulaye 66 769 Abdou Karim Ka mention passable lycée Banque Islamique so mention passable lycée Seydina Limamoulaye 66 894 passable groupe scolaire Dabar Malik fin de liste. voilà jury 11 second

Elisabeth Gomis lycée Seydina Limamou Laye 66 644 François Mitterrand Gomis Academia Limamou Laye 66 645 Géraldine Gomis Academia Limamou Laye Dabar Ahmad Mor Anta Baba Gueye École privée les praticiens 66 661 lycée Mame Abdou Ciss Dabakh 66 667 Badara Gueye Rokhaya Diori Gueye lycée Seydina Limamou Laye 66 736 Rokhayatou Gueye lycée Seydina Limamou Laye 66 739 Serigne Cheikh 66 920 Diarra Fall M Possi lycée Seydina Limamoulaye 66 927 Awa Maron groupe scolaire Le Baobab 66 928 Astou Mbène Mbacké lycée Pikine 66 lycée Seydina Limamoulaye 66 936 Alassane Mbaye lycée Seydina Limamoulaye 66 941 Cheikh Maïssa Mbaye groupe scolaire Dabar Malik 66 939 Bassirou Mbaye lycée Seydina Limamou Laye 66 944 Fatou Mbaye école privée Médium 66 941 Cheikh Maïssa Mbaye groupe scolaire Dabar Malik 66 945 Fatou Mbaye lycée Banque Islamique 66 947 Ibrahima Mbaye lycée Seydina Limamou Laye 66 948 Ibrahima Sarr Mbaye lycée Seydina Issa Rouhoula 66 950 Khadim Mbaye lycée Seydina Limamou Mohamed Mbaye Academia Limamoulaye 66 965 Moussa Mbaye lycée Seydina Limamoulaye 66 966 Ndeye Mbaye lycée de Pikine 66 009 bien maanaam 10 mentions bien donc moom mooy euh, jury bi nga xam ne euh, daanaka mentions yi bien yi ak bien yi moo ëpp si série yi nga xam ni wala si jury yi nga xam ne moom moo fi nekk si série s bi donc mbokk yi li moo nekkoon li nga xam ne moom mooy euh, proclamation résultat baccalauréat année 2024 fii si centre baccalauréat lycée Euh, Limamou laay bu Géejawaay euh, nombre inscrit ci lycée bi yëpp yëpp yëpp mu ngi toll ci 2284 ñaari junni ak ñett téeméer ak euh, juróom ñetti fukk ak ñeent ñoo fi inscrit góor ñi ñu ngi toll ci 979 jigéen ñi 1305 fii ñi nga xam ne absenté nañ si centre bi seen i lim ñoom ñëpp boo ko boolee 62 la 22 si ay góor lañu 40 ci ay fii lañu. yéen a ñu koy bàyyi xel di ñu seetaan si Sénégal 7 en même temps si Dakar Buzz TV mbokk internet yëpp ñu ngi leen di ziar en tout cas li moo nekkoon délibération wala proclamation résultat baccalauréat 2024 euh, fii si centre euh, lycée euh, Limamoulaye bu Guédiawaye donc bu ñu jigee fii dinañu dem fi nga xam ne moom mooy centre Joseph Correa tout justement fi nga xam ne moom mooy fii si Limamoulaye donc continuer leen di ñu topp Euh, si proclamation résultat yi bu ñu fi jugee dinañu dem Joseph Correa euh, foofee tamit si kanam tuuti lañu proclamer résultat yi su ko defee ñu leen ko donc au total 6 euh, jurys moo fi amoon juróom benn jury jury 11 35 11 ba 11 40 ñoom ñoo doon amal li nga xam ne moom mooy seen proclamation résultat donc fi nga xam ne foofu la ñu nekk ni jury 11 40 la ñaari mention très bien moo fi am am nañu fukki mention bien ak une vingtaine de mention assez bien deuxième tour yi tamit bari na lool donc wax naa leen ko tout à l'heure au total inscrit si euh, fi nga xam ne mooy centre bi 2284 la euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo composé 2222 la ñi absenté seen i euh, lim mu ngi toll si li nga xam ne alors moom mooy 62 absents donc ñu ngi leen jox di daje si kanam tuuti incha allah proclamation résultat ak si yeneen centre ak si yeneen jury si ngeen jëf